<laughs> commencé jël seen poche en attendant donc mbokk yi li ma bëggoon wax mooy ginnaaw bu ma am santé bu baax a baax a baax maire yi ak président conseil départemental centre président UAM UAM euh, AMS ak UAL ADS agence euh, non association des départements du Sénégal ak l'union des associations des élus territoriaux ak association des maire du Sénégal ma sant aussi ñi jiite association yi ci xalaat bu rafet bi ñu am ak la chambre des élus ak les élus de benn Bokk Yaakaar de la grande majorité de la de la majorité présidentielle ma sant la nag bu baax ndax lii da ngeen ko sàkku si jamono ju xat waaye wax ngeen ko man dama jàpp ne maire ci politique dafa am signification parce que yéenay le représentants du peuple à la base ñi fi nekk di wax waxuñ ci turu kenn représenté wuñu dara représenté rien du tout parce que boo bëggee représenté dara da ngay dem fi ñuy wotee nga def sa liste ñu ñu fal la bu ñu la falulee au nom de quel peuple tu parles au nom de qui tu vas parler donc man dama jox cër maire wala président conseil un élu wala député parce que da ngeen dem compétir gagner yor ndomb tànk yor kàddu askan wi donc ñooñu bu ñu ma soxlaa te yàlla def tey ngeen am majorité boo xam ne amul natable ci Sénégal am nga fi coow li moo baree dañu dem élection maire yi nit ñi di xëccoo suñu biir c'est normal parce que mbir la moo xam ne ku ne dafa bëgg a falu donc résultat ya cay génn bu ñu ko bëggee projeté ci présidentiel kooku ñàkk xam-xam la pareil pour les législatives parce que ay liste yu bare génn nañu suñu biir man mi joxe naa ay liste man mi jiite parti bi maa fay benn caution léeg-léeg bu ma xamee ne arbitrage bi dëgër na mën a yow dama jël bi nga dem dem naa ko Kolda doo ko feneen ak feneen ak feneen ak ñibi sax ak feneen donc loolu bu ñu ci bëggee am lecture c'est que on ne comprend pas les dynamiques politiques mais li wóor mooy majorité te liggéey di ko joxe yàlla dënk nañu ko waaye nag majorité lu mu am am solo su amul pas-pas amul unité du am solo su boobaa bu yaafus jógee sax mën na la perturber loolu moom mat a moytu mais bu ñu jàppee unité bi nii ngeen ko waxee tey ngeen gëm fi ñu jëm taxaw nekk benn ak lu mënti am victoire rek ngeen di dégg victoire rek ngeen di dégg donc loolu nag moom moom laa leen di dënk l'unité et ñu éviter division diw la diw la gis nañ ne diviser on perd faut pas se faire d'illusion hein on est en régime présidentiel ça veut dire que président bu fi ñëw bu ko neexee suba mu tas mairie yëpp décret lay jël rek joxe benn exemple wax telle raison nangam nangam mu tas ko mu jeex tas assemblée na tas lépp c'est comme ça ça se passe faut pas se faire donc président ngeen di mën a fal mu jàll jàll ñu si def ñëpp donc pour loolu nag il faut éviter tout ce qui peut nous diviser ensuite il faut nit ñi am lucidité lucidité mooy ku ne war nga mën bëgg c'est normal c'est légitime waaye nag ku ne na nga waxtaan ak sa biir sa bopp xool ndax war nga mën a taxaw ak nu situation yi mën demee wala war nga mën def loo xam ne dana yàqal say ñoñ c'est très important gis nañ ko fii ba tey ñi ñi naan dañu nekk pare parrainage sax mënuñ ko am te amul benn parrainage buñ fi buñ fi yàqal kenn de parrainage mënuñ ko am parce que c'est pas évident te parrainage bu bees bi foog nga am du treize députés ñun ñoo ko wàññi rek ngir yërmande treize yërmande lañ dawa rek comme gars dañ commencé doon wax ak njëkk ñu wàññil leen ko wàññil leen ko traite mais foog nga am traite député attention wala nga am cent vingt maires kan moo ko mën a am Sénégal à part yéen nit bi cent vingt maires amul wala boog nga am nee nañ zéro six wàññiwaat nañ ko ba zéro six pour cent des sept millions et quelques d'électeurs mais ci biir loolu du rek 06 foog nga am ci juróom-ñaari région bu ne ñaari junni nit yu leer 14000 yoo xam ne c'est dans sept régions la ñu bokk minimum waaw ku mënul am loolu looy sonale nit ñi sonale nit ñi donc vraiment euh, man dama jàpp ne engagement bi ñu am ak yéen am ko ak askan wi danañ ko continuer liggéey bi ñu tàmbali surtout comme ay élus laa toogal ci wàllu décentralisation ci wàllu développement territorial ak équité territorial dinañ ko poursuivre déjà maa ngi wax premier ministre il faut que déjà même avant at bi di jeex waxoon nañ PACASEN rural bi foog ñu comp ci dara pour tàmbali ko minimum entre cinq et dix milliards su ko defee nag sur le budget de 2024 qui va venir au moins ñu jéem a am une trentaine de milliards def ko sur le paquet li nga xam ne ci budget bi lay génn loolu dina tax vraiment ñu continuer concentrer bien sur crédit yooyu ci li nga xam ne ñëpp moom la ñu soxla ci gox yëpp muy ndox muy courant surtout ñaar ñooñu loolu buñ ko defee dana rejoindre suñuy préoccupation ci wàllu accès universel maanaam fexe ba ñëpp am ndox ci Sénégal ñëpp am courant ci Sénégal ak fu ñu mënti dëkk après ñëpp am ay yoon ñëpp am leneen ak leneen ay bërëbu fajukaay ak yooyu donc loolu mbokk yi mooy li nga xam ne dama bëgg dalal seen xel buleen leen bu leen kenn déstabiliser bu kenn déstabiliser uni je vous ai uni amul force bu leen mën a daane mais nag désuni moom xaw ma xaw ma seen avenir wala suñu avenir xaw ma ko désunis on est perdant mais unis on a une force mais qui qui est imparable imparable kon loolu mooy wax ji li ci des itam ah foog naa ne Ami Ndiaye wax na ko ñii bi moom ñii bi yóbbaale na tur bi moom njàppat wax na ko il faut que nit ñi di yaatal il faut ñu yokk solidarité bi mbir mi du affaire alal ju bëri déedéet xam nga kii tabe ajowul mu bëri alal ki tabe li mu am rek lay bokk ak nit ñi ak nu mënti toll donc il s'agit pas de chercher des milliards des milliards non pour pour doo ko commencer di maye non mais la nga am yàlla dënk la ko mais nga bokk ak nit ñi parce que politique munoo ci nekk ba am alal c'est pas possible munoo am alal am mbooloo la politique c'est d'abord la solidarité nekkal nit ñi ñoom ñu nekkal c'est aussi simple que ça donc il faut ñu yokk solidarité bi il faut ñu dellu ci base yi pour ñu dellu ci base yi dañ toog ndakaaru gi rek ah naan dañu am conseil dañu am lii dañu am laa parce que balaa nga naan nam ne fa ma ngay dégg monsieur le ministre ak monsieur le député monsieur le directeur day fekk ngeen yor pouvoir bi donc pouvoir bi nag di ko yor mooy mbooloo mi askan bi faut être à la base dès à présent commencé waxtaan ak nit ñi xool aussi li nga xam ne doxul si liggéey bi liggéey foog moom lu ci doxul wala lu ralentir wala ay chantier ñu ubbi doxul et cetera ñu rapporter ko chaque semaine les responsables doivent être sur le terrain c'est ça le mot d'ordre bien sûr wax ji jar na ko jaru ko jar na ko boo leen bëggee tontu ñi nga xam ne wax rek mooy seen métier xanaa ñu xool rek si ñun ñenn ñoo xam ne dañ leen di féetale liggéey boobu parce que tam bon foog nga wax parce que boo waxul nit ki wax ay kàcc day dem ba jàpp ne moom moo am dëgg alors li muy wax dara du si dëgg dara donc foog mu am quand ñu tontu tuuti di dindi tuuma di teg li dëgg mandat bi par exemple ku ne xam na ni Et c'est là où je dis, un intellectuel ne peut répondre de cette qualité que s'il a au moins l'honnêteté. Un intellectuel qui n'est pas honnête n'en est pas un. N'en est recommande que, même si tu es partisan, sur un débat, tu ne pas violer la réalité des faits. ku ne xam na ne ngay juriste ak bañ a nekk juriste Omar yu mu wax na ko léegi xam nga ni après le référendum de 2016, le Conseil constitutionnel m'a instruit, moi, en tant Parce que le Conseil prend des décisions qui sont applicables par toutes les autorités, quel que soit le rang. Parce que man dama defoon mu compter le mandat de 2012 et ñu réduire ko il a dit il faut enlever cette disposition transitoire parce que ce mandat est hors de portée de cette réforme loolu kay leer na bu ñu ñëwee le mandat est de cinq ans euh, nul ne peut faire plus de deux mandats non du ñu wax cinq ans dañu naan rek nul ne peut faire mais nul ne peut faire amul lu ko jiitu ah <laughs> nga ñoom bu ma leen toppoon kon déclaré naa bu yàgg sama candidature su ma leen toppoon ñoom du leen topp du ma leen topp parce que ñoom taxuñu may liggéey taxuñu may may may bouger.